tuxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay fay alaaji Sanjoogu di nuyu ñu ñu bokkal palaato bi di nuyu mboolem sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jiital ci nuyoo bi ak ñaan yi cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général di Mouride di nuyu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Sidil Maxtaar di nuyu sax na May Mbàkke bintu cheikh Sidil Maxtaar di nuyu sëriñ Abdou Samad Mbacké ak euh, sëriñ euh, mos euh, Jili mu sëriñ Sidi Maxtaar Mbacké ak sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sidi Maxtaar di nuru sëriñ Moodu Haysa Mbacké di ko sant bu baax ak sëriñ Habib Diop ak mboolem njabootu sëriñ Sidi Maxtaar gépp maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu sëriñ Xaadim Lo Gaydel di nuyu sa Fallou Fall Bilbao di CP international maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu képp ku ñuy seetaan di baalu àq sénégalais yi tamit ci julli gi ñu génn mbooleem rëcc-rëcc ci wax yi ak jëf yi ak yi ñu yëg ak yi ñu yëgul yëpp ñoo ngi leen koy jéggalu tey jéggal képp koo xam ne àq dafa nekk sama diggante ak yow tey ñaan yàlla ñu fekkewaat ko itam ay déwén. jërëjëf Cheikh Ndiaye borom def bis macha allah Cheikh Bara euh, macha allah defe naa ni boo yëree internet bi gis nga coow li nekkur ci ki nga xamante ni ki jàppoon nañu ko muy François Kabou. la moom la tudd ñi daal di commencé publier daal di ne ginnaaw bi nga xamante ne bii kat yoon tegoon na ko loxo amee woon na ab jàngoro ginnaaw gi yóbbu woon nañ ko pavillon spécial ñu ne ginnaaw gi ñuy wax naan ay réer na dafa réer dafa dafa rëcc jekki-jekki ñu daal di ñuy présenté ne dañu ko faat noo jàngatee mbir mi ak xibaar yi ni nga xam ne noonu la wëndeeloo lu ci ne nit ñi wax ko ci ba léegi fi mu doon ñu ngi publier kii yoom di wax ni euh, décédé na. Hmm. noo jàngatee yooyu. waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaalee François moomu ak euh, di jaale ay soxnaam ak njabootam yëpp ak famille Mankagne bi nga xam ne ci la bokk ak euh, mboolem daal ñi nga xamante ne ay bokkam lañu rek. ay hmm. bokk ak ñoom tiis wi parce que moom dafa bokk ci victime yi nga xamante ne. maanaam mën naa ko woy victime yi président Macky Sall ah, parce que deful dara moom sax xam nga dafa am ñu ñu tuumaal sax waaw ñooña ñu fekk ci seen whatsapp ñu ojoonte ak moom xaw ma daal lu maanaam loo xam ne waruñu ci mën a woon a arrêté nit maanaam hmm. waroon nañ ko mën a woo bu fekkee nañu dañu enquête ci moom ñuy enquête muy dem ak a ñëw hmm. waaye ñu fekk ko biir këram ci kanamu ay njabootam ci lu mu yëgul tinul bokkul ci parti demul ci mitin deful dara ñu ne ko léegi dañu la ngaa bokk ci benn force spéciale jàpp ko yóbbu ko euh, fitnaal ko ba mu am problème ñu yóbbu ko urgence après yóbbu ko royanimation après nag mu gaañu démb ci guddi. Mhm. loolu moo am booleek hmm, booleeg euh, Pape du sekk moom ñuy wax naan dee naag déewut ak naan rëcc na ak rëccut. Mhm. soo ko boolee ak ñi tëdd ci kaso yi. ak néew yi nga xamante ne ñu ngi ci margu yi depuis daanaka lu mat ëpp 15 jours. Mm-hmm. seen i mbokk mënuñoo jot ci néew yi mooy ñaari néew yooyu nekk. Ziguinchor mm-hmm. ak góor gii daan jaay matelas yi fii ci. wetu Masaalikul Jinaan nga xam ne booba ba léegi. police ak gendarmerie nangu ñoo wax mooy kan. Mm-hmm. wala maanaam lan moo ko rey. ak nu mu dëkk fu mu tudd maanaam nanguwuñ cee wax dara dañ ko dañoo jël lépp dëxañ loolu nag dafa nekk loo xamante ne lu ëpp jéggi dayalo te dara waralu ko nag. Mm-hmm. maanaam fee bi ko waral maanaam fi mu ne da lay wax ne rek maanaam réew mi ci boppam moo nekkul ci ay loxo. Mm-hmm. mooy le huit waa yeewi askan wi dañoo woote ab manifestation manifestation ba yàlla dogal mu xumb lool. Mm-hmm. bañ fa jógee ñu bëgg a wootewaat am manifestation. Ah. nguur gi ne waa yeewi askan wi duñ taxaw place de l'obélisque defaat fa manifestation. teg ko rek ci bëgg leen a jaay doole waaye nag nit mënoo taxaw ne man damay jaay doole ñii. duñ fi defee kii ñu bëgg ko justifier boobaak léegi dégg nañ fi robel buñ génn ñu ne robel am na hmm. maanaam ngir rek mën a mën a justifier li tax waa Yewwi bañ a def seen manifestation jóge fi waxaat ne force spéciale am na pour justifier ko jóge fi continuer di xëccoog ñoom naan naan dañoo aaye euh, ku bokk ci ay euh, maanaam avant élection yi benn pann parti def mobilisation nit ñi xëccoog ñoom ci loolu bañ reyaat ci ñetti nit soo ko boolee mhm. ak ak ñii kii dee ak kii réer ñu naan dee na ak déewut loolu lépp day nekk victime boo xam ne maanaam bañ benn benn parti boo xam ne dañuy taxaw fi ñuy taxaw mhm. duñ fa def sax deux heures de temps wala trois heures de temps yu mat tasaaroo ku ne ñibbi maanaam bañ loolu dong moo indi nga rey ay nit ñu dul geex nii mhm. loolu lépp nag day wane ne maanaam réew mi ci boppam dafa nekkut ci ay loxo xam nga man keñ dama lay wax ne maanaam police maanaam xeetu police gendarmerie ay magistrat yeeg justice bi. Mhm. ak euh, journaliste yii. waaw maanaam ñoom moom béye boo ñu ñaan yàlla Macky Sall gaaw dem. Ah, parce que moom bu fi Macky continuer hmm. maanaam dama lay wax ne daanaka ñoom bu ma la ko doon message nit lañ ñoo xam ne ngi dans le coma. ñan ñoo nekk dans maanaam euh, affaire maanaam magistrat yi ak police ak hmm. gendarmerie. ak journaliste Sénégal. Hmm? seen der Macky Sall da koo yàq. Ah ba mu yàqu yaxeet. daanaka lañ ne. te ci non ci dee lañ jëm parce que day dem ba. waaw police lu mu defati dañ naan ci tooñ la ko teg. san ab journaliste lu mu waxati ñu ne waxul dëgg. Hmm. foofu lañ jëm ak ñoom parce que lii ñuy def nii kenn xamul lu mu doon man nag jàpp naa ne lii Macky Sall def nag xam naa ne conseil Xaadim Samb la. ndax Xaadim Xaadim Samb ab xaritama. teyit it <laughs> euh, moo koy jaay dibi nee na xaritama dañuy waxtaan. waaw te Xaadim Samb nee na président daa war a jàpp di tëj di rey. Hmm. waaw Macky nag mu ngi jàpp di tëj mi ngi rey. ah ah kon xam naa conseil xaadim yi la ndax ma ci Sall moom dégluwul marito ñaan hmm. dégluwul Abdou Aziz Tall hmm. dégluwul benn professeur dégluwul professeur Aliou Sow dégluwul benn borom xam-xam hmm. ñoom ay Farba Ngom ay xaadim Samb ñu la ko yàlla nattoo jaaykat yi dibi yeeg ñuy riiteeg ñuy xalam ñu lay déglu <laughs> di di ci àtte réew mi moo tax mi ngi rey mi ngi tëj <laughs> mhm. <laughs> Farba lay jaay ay terrain. waaw jaaykatu terrain lu muy lu muy wut ci nopp président na dem na dem ca terrain ya. <laughs> jaay terrain ah, xam-xam dégluwul benn borom xam-xam ci réew mi ñi amoon xam-xam di ànd ak moom ñëpp dàq na leen. Eh. dàq na Aly Ngouille Ndiaye dàq Amadou Ba. Eh. dàq Marito ñaan daq ñëpp. des ak ak ñi nga xam ne maanaam riiti xalam lekk dib yi. léegi nag jaaykatu dib bi sax mooy ñëw ne ko léegi rayal tëjal muy ray di tëj. jaaykatu dib bi waaw Xaadim Samb mooy jaay dib bi président yi. moo ko jaay dib moo koy lakkal dib bi di ko jaay. laaj ko xaalis mu ngi lakk ba tey. mooy lakk dibi bi di ko jaay de. waaw bu da koy lakk may ko wala jaay wala jaay. da koy lakk jaay ko ko ne ko rayal tëjal sa waay di ray di tëj. <laughs> waaw c'est jaay borom def gis <laughs> eh, ay waxama c'est dañuy ñëw dem ci. Xaadim ah, eh, Samba ko wax di moo toog ci télé bi ñëpp ko dégg. mu ne président daa war di rey di tëj. Macky nag mi ngi tëj mi ngi rey. ndax mm. jant jant boo xëyee. maanaam am na ay victimes politiques yu nekk ci mm. ay prisonniers politiques yu nekk ci biir kaso bi. yoo xam ne ay prisonniers politiques lañ. Mm-hmm. doo dugg weer ba génn ko mm. ñu ne diw dee na te wërta woon a dee. yaa ngi fàttali ko barki dem bi ñu fi jàppee Baye Modou Jinne booy ba mu àndaloon danoo xëy ñu naan jël nag jàmpe dee nag maanaam li la wax rek. Mm-hmm. police ak gendarmerie. waaw billaay bu Macky Sall yàggaatee fii ah. <laughs> daal la ko baale. maanaam bëgg ngoomaan yi sax ñoo leen ëpp njëriñ ñoo leen ëpp crédibilité ci réew mi. <laughs> jërëjëf Cheikh Bara macha allah Cheikh Bara day ñëw rek parce que campagne bi ubbi na. defe naa ni gis nga campagne bi ni nga xamante ni noonu la yëf yi tàmbalee yëngu yow bi nga gisee campagne bi bi mu ubbeek léegi yëngu yi nga xamante ni bii eh, commencé nga ko gis noo jàngatee li nga xamante ni bii moom la ñuy wax. Euh, yëngu yi nga xamante ni bii moo am ci campagne bi noo gisee li nga xamante ni bii tey euh, campagne bi demee na ko ndax sentir nga yëngu-yëngu geeg kii beeg yooyu mi ngi yëngal wala yëngaluñ noo gisee. waaw hmm. maanaam la ma doon tooñ fan yële naan dibiteeri bu ubbi bisu tabaski. waaw maanaam genre boobu la xaw a def. mooy dafa ñëw ñu tàmbali campagne ci suuru tabaski. Hmm. nga xam ne daanaka kenn talu ko. waaw loolu géeyal na. campagne bi. li mhm. ci des mooy candidats yi dañoo néew. dañoo par rapport ak élection locale. dañoo néew trop. Mhm. parce que lu toll ne euh, quarante six départements. lu toll ne seize millions sénégalais. war a mhm. jël ñu leen di décider ci place. ñu au moins au moins te parti yi mat trois cent parti au moins waroon naa nekk ñaar fukki partie yu bokkut. couleur yi wuute xel yu wuute xalaat yi wuute ñu dem. bu ko defee loolu dina gën a animer affaire bi mais juróom-ñetti candidat vraiment ñun dañ daan dem sax présidentielle muy mat vingt candidats boo xoolee euh, présidentielle bi Macky Sall falo hmm. candidats yi foog naa vingt la woon xaw ma dix-neuf waaw kon bu ñu demee ba local di ñokk huit huit huit huit huit parti rek war a animer assemblée nationale loolu dafa tuuti hmm. vraiment euh, bi ci desit mooy tabaski gi comme ni ma ko waxee mais li am solo te am solo mooy euh, kenn ku nekk def nga sa façon mooy ñoom Mimi ñoom première bi tabaski gi taxoon na dañoo ñëw ca plateau ya def ko moom ñoom Abdourahmane Diouf ak Pape Djibril Fall ak waa yeeweeg ñëpp. Mhm. deuxièmement léegi gis nañ ne moom euh, coalition yi moom kenn réagir agut kenn ku nekk maanaam waa ñi ngi ñi ngi ñi ngi def nii rek mais kenn duggagul ci campagne bi. sauf que mhm. waa APR. Mhm. waa APR mag xëy na Mimi Touré bu dee ku ko miin ci politique nitu terrain la. boo xoolee deux mille dix neuf ak maanaam saa bu tàngee ba nekk ba ñu war a taxaw ci terrain bi en général boo xoolee da nga koy gis. deux mille dix neuf daanaka moo daan yee ji Macky Sall taxaw buntu këram bu génnee ñu dem loolu moom om de terrain la boo xoolee dañoo tabaski ba pare rek mu sóobu ci. Mm-hmm. dem na Touba dem na Linguère maanaam fi mu gën a nooyee ci moom. laay wax rek par mm-hmm. exemple parce que Linguère seen kii la bu ñuy gañe lu baree bari. Ah. Louga dañ koy gañe lu baree bari. di mm-hmm. gañe daggana lu baree bari di gañe Ndar lu baree bari. moom dem na ci dëkk yi nga xam ne fa la ma fa la gën a yaakaare ndam. dem na fa. foofu nag am naa ci ay njàngat yu bëree bëri. waaw bi ci njëkk mooy Linguère Aly Ngouille la fa fekki woon. Mhm. Aly Ngouille mobilisé na mobilisation ba nag des na ci mbooloo. mais en tout cas mën naa nekk tabaski bi moo tax. parce que mhm. jàpp naa ne la mu sax ku bëriwul mbooloo mënoo ko mobilisé maanaam ci suur yooyu sas tabaski bi. donc kon mobilisé na. Mhm. Euh, foofa nag yaakaar naa ne ñoom mën nañ faa am ndam. mais comme dañuy jàngat tamit am na enjeu tuuti. am na enjeu. enjeu bi mooy. Hmm. dafa am aada boo xamante ne moo nekk ci diggante pël ya ak wolof ya. aada boo xam ne euh, dañ ko mës di respecté parce que jolof dëkk pël la ak olof. ñoo ko bokk nekk fa nekkin bu rafet. Hmm. saa bu poste ñëwee. Hmm. dañuy jël maanaam élection législative yu mas a am ñaari député yi kenn ki day nekk olof kenn ki nekk pël. loolu moo nekkoon aada bi nga xam ne même. depuis parc dañ ko dañ ko respecté daal. même boo xoolee ci euh, wàllu falu ministre yi sax da ngay jël ku mel na Ali Sare olof la nga jël Samba Ndiobène Ka pël la. ñoom ñaari ñoo bokk ñoo séddoo daara. côté côté côté jolof bi. léegi nag Aly Ngouille bii paa gis naa ne moom dafa risqué jël ñaari olof. ñaari olof teg leen xaw ma nag. dafa xool ci ñaari olof yi xam ne fii la ndamam nekk mu def ko xaw ma dafa risqué def ko xaw ma quest a mais en tout loolu aada woon bu ñu mii noonu bu ñuy def loolu loo nit xaw ma mais def na ko boo xoolee wallu ak Yewwi seen coalition dañoo respecté euh, dañoo respecté ñoom euh, kii bi nu mu tudd tuddati dañoo respecté li ma la wax aada boobu ñuy def ci diggante pël ak wolof. mooy El njaay Ndiaye lañ jël ak keneen ku jigéen koo xamante ne pël la. Mhm. bu bokk ci waa PDS ñu fo ñu samp ko foofa. boo xoolee tamit am na beneen enjeu mooy euh, ki nga xam ne mooy tête de liste suppléant yi mooy numéro un bi nekk ci suppléant yi rakku Habib si la ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. moom. Euh, Jolof la dëkk aussi. Ah. loolu tamit damaa xamul ba xam trois contre deux yooyu. Hmm. dina am effet. wala du ko am. Hmm. en tout cas euh, li am solo te am solo mooy foofu moom vote bi bariwul hmm. matul vingt mille voix defe naa matu ko entre Daara ak ak ak Linguère ñoo ñoo ñoo ñoo ci ëppale. ak ñooy ëppale daanaka boo xoolee bii dix mille la bii seize mille foog naa bëriwul daal. Ah. am weesuwul vingt. loolu nag détourné ko dafay yomb parce que 20000 votants daanaka da ngay xam ne ci 7000 familles la ñuy dëkk wala 8000 familles. Mhm. maanaam loolu pour détourné ko mu sensé ci changement bu kenn xaarut mën naa nekk mais en tout cas Aly Ngouille mooy gën di kii. Mhm. boo xoolee bi mu fi jógee dem na Louga Louga. Mhm. mënuma ko analyser politique. parce que man li may li ma fa am man mënuma ko jàppee politique. mooy Moustapha Diop. waaw. Euh, dafa nekk miracle daal man ci sama gis-gis. miracle waaw Moustapha Diop. waaw parce que maire Louga waaw Moustapha Moustapha Diop kenn mosu koo gis mu toog ci télé. di def émission di wax. waaw kenn mosu koo gis mu toog ci rajo naan day défendre Macky Sall wala muy wax ay bilan wala lenn. kenn mosu koo gis daanaka du ñu bëri xamuñu ko. même ministre bi mu nekk daanaka xamoo mi ngi liggéey xamoo liggéey parce que amul lu muy rendre compte benn journaliste. Mhm. maire Louga tamit da koy gañe te dëgg-dëgg tamit liggéeyul. liggéey bu extraordinaire bu koy war a mën a tax <laughs> non dëgg laay wax ah. liggéeyul lu extraordinaire lu ah. koy war a mën a tax saa bu élection ñëwee ñu falaat ko maire ñu fal ko waaw Louga pauvreté baa nga fa jafe-jafe yi nekk ci dëkk yëpp yu fa nekk mhm. mais Moustapha Diop doonte du du du dem ci meeting du def ci du dem ci <laughs> émission ah. du def rajo amul daanaka compte YouTube wala Facebook yi amul dara mais saa bu élection ñëwee mu raafal ko moom bu <laughs> loolu moom kenn mënu koo tudde politique li muy def moom dong la jik ci Sénégal benn politicien bu ko ñemee def amul ah. doo wax ak nit ñi ba noppi ñu lay defal li nga bëgg moom moom ñaar la ñaar ñaar man ah wax dëgg yàlla de du waxee nit ñi moom daal wax dëgg yàlla moom ki moom ko moom ah. man confirmé naa ko parce que hmm. nag élection yu mën a ñëw bañ na ko ba bii sax ab booyam la teg booyam la tey waaw te day ah boo moytul dina ko raafal parce que noonu lay demee man damaa xamut daa daa daa daa den xaw ma daa dem ca forage ba def ca sunguf gars yi naan ko bëgg ko hmm. man xaw ma di fay ñu koy wateel mais hmm. en tout cas Louga moom ah. la fa nekk moom du politique lu kenn mën a analyse li muy def moom mel na Moustapha Diop ko ñemee damaa xamut ba xam da koo leer ne hmm. waa Louga dañuy jaay mu am njëg di leen jënd <laughs> xaw ma dañ koo bëgg noonu di ko di ko wateel te yàlla tax di ko sarax wadi xaw ma da leen di fay ñu koy wateel mhm. xaw ma daa am mystique bu ci rax xaw ma qu'est-ce qu'il y a mais li Moustapha Diop di def moom nit mënu ko expliquer moom mhm. ci politique mhm. moo tax ñëw na fa mbooloo mi bi ñëwee tamit am na lu ma ci seetlu diggante Linguère ak ak ak ak ak ak Ndar. ak mhm. mooy ñetti ñetti responsable mooy Aly Ngouille Ndiaye Moustapha Diop ak Mansour Faye. waaw Aly Ngouille boo xoolee mbooloo mi. bi Mimi ñëwee dañ ko tatagal def ko star. star dañoo jébbal dafa dafa jël mbooloo mi jébbal ko Mimi. boo xoolee nag Moustapha Diop. dafa dafa maanaam loolu nag ngalaju politique lay doon yoo xam ne doo ko xam. Mhm. mais maanaam ñoom dañ ne wan Mimi ne ko ñun Moustapha mooy suñ star. voilà yow doo suñ leader. booy wax day tàcc yi day xaw a des. boo tuddee Moustapha rek. ñu wax ji. Mhm. même Ndar man soor fay même chose la def maanaam indil na mbooloo mi mais jébbalu ko Mimi jébbalu ko waaau mm-hmm. Mimi tamit foofu euh, nu mu tuddati Ndar Mansour mën na koo gañe mën na koo gañe voilà parce que tamit moom tamit mm-hmm. vraiment moom dafa bëgg Ndar day toog Ndar lu mm-hmm. bari dafay nekk tamit di jéem a liggéey loolu moom day am waaye nag buñ sukkandikoo ci élection parce que loolu moom dafa dana dana maanaam mën naa gañe Ndar moom mën na ko gañe mais nag comme li ma wax rek mën na perte aussi na perte parce que boo jëlee Aba Mbaye digganteem ak Mansour ci élection yi jàll. dafa xawoon a. balotage léegi nag boo jëlee. marito ñaan lam amoon. te xam nga ne yow militant wu marito ñaan. waaw mënta wateel Mansour Faye mais mën naa wateel Aba Mbaye parce que marito ak Aba sore wuñ ay profil. waaw sore wuñ lu ñu incarné. Mhm. boo ci dollee la waa wallu amoon. Mhm. boo moytuwul rek euh, dafay am problème maanaam waaye nag mën naa am lu ko kii. mooy waa Bennoo Bokk Yaakaar dañoo def technique mooy dañoo jël euh, ki nekkoon gëm sa bopp euh, Ahmed Fall Baraya def ko seen directeur campagne hmm. rien que pour mu contrer Aba Mbaye parce que li Aba chiffres yi Aba amoon ak coalition yeewu wallu ba ñu fa def moom loolu bu dee ci chiffre nii Mansour day ñàkk mais nag def nañ tic tag boo xam ne hmm. doo xam ba pare Macky Sall tamit mi ngi jéem a dem ndar pour campagne al Mansour hmm. parce que xam naa tamit day xam ne fii wóorut voilà c'est pas sûr quoi voilà c'est pas maanaam wóorul looloo tax hmm. mais en tout cas daal mën naa kii bu dee Touba nag waaw euh, mi mi ñëw na fa am na fa nag euh, lu ko neex ndax sëñ Muntaxa recevoir na ko sëñ Bass recevoir na ko wax nañoo moom wax joo xam ne hmm. neex na leen hmm. waaye nag jàpp naa ne jëlee nañ fa lu naqari taalibe yi moom ñan ñoom def nañ lu naqari taalibe yi parce que mimi mimi dafa def loo xam ne aada politique nanguwu ko muy lan dafa dem fekk sëñ taxaa toog mu ñëw dagg ci kaw gi toog dend ak moom di wax te jàpp naa ne ñoom candidats yi huit lañ. waaw soo jëloon huit candidats yëpp koo ci ne toogal dend ak sëñ Muntaxa ci banque bii mu lànk. ba ci Pape Diop bi mu fa demee dafa sukk ci wetam toog. waaw nanguwul a toog ak moom ci kaw. Mm-hmm. huit candidats yëpp daal. Mm-hmm. nangu ñemewuñ moom li mu Mimi Touré ñeme moom. xaw ma nag fu mu ko wéer parce que Mimi bu dee institution moo koy may moo tax mu def ko moom du institution ci réew mi. waaw waaw du du maire du ministre. Mm-hmm. collecteur la. ak ak ak candidature candidat APR collecteur maanaam euh, mimi moom mimi moom bu amee maanaam xam nga mimi bu fekkee dafa jàpp ne moom nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar dafa am lu dayoo bu mu toll moom moo moom moo Guy Marius Sagna ñoo tolloo ci réew mi gëdd Ah, ah. ñaari candidat lañ rek. Mimi ak Guy Marius Sagna actuellement nii. Ah. ñoo tolloo génn gëdd ci réew mi. ay candidat lañ waaw. ay candidat simple lañ. Mm-hmm. amul leneen lum lum ràngoo ba tax muy def loolu. te moom murit la parce que taalibi sëñ naar jenn la man dajanaa fa ci màggalu sëñ naar jenn ay yoon yi yoon yoon mu fay ñëw ci suuf te itam sëñ Muntaxa nee na ko yow maak sa maam. Mm-hmm. amoon nañ lu ñu daan séq. donc kon war naa mën a xam ne. xam nga dañoo wax ne wala wolof yi ñoo naan suukar ba la rombee na day sangu ji. bu dëppee rek dalay nax yëggut Mm-hmm. waaw suukar su dem di sangu ji wërta man a dëpp waaye bu fekkee taalibe murit nga dafa am yoo xamante ne mm-hmm. ak lu sa ndomba tànk rëy rëy rëy mm-hmm. comme ni ab Ablaye da daan def bu dajeeg sëñ Saaliw loolu dafa am solo te Macky Sall mii bi muy laaj réew mi dafa dem ba ci kanamu sëñ Muntaxa ba keroog sëñ Siidi Muxtaar la fi fekkoon bi muy dem dafa sukk ci toog ci kanamam photo yaa ngi fi ñaan ko ne ko ñaanal ma même bi muy nekk président assemblée national jamonoy Alaaji Baara bu ma saan dem day toog ci suuf mboolem député candidat yëpp ba ci Idrissa Seck élection législative euh, présidentielle bi jàll Ousmane Sonko ñoom ñu dem ci xalifa bi yëpp dañuy àgg toog ci toog ci kanamam na ko ñaanal ma mi mi nag moom dem na toog ca wetu sëñ ba xaw ma nag lu mu ci jublu waaye daal moom loolu moom mën naa am naqari sëñ bi de waaye moom jour boobu Touba la ma fekk mhm. mais Touba gépp mhm. dañ ko doon waxtaane di di ko di ko métitlu ah. vraiment loolu moom euh, noonu la demee bu dee nag waa yi askan wi mhm. gis naa ne ñoom defaguñ dara waaw dañ maa nuru nag ñu amul xaalis. ñu amul xaalis. ah lu tax wax lool yeewi yoruñu dañoo dañ maa nuru ne PS dañoo dal ci benn affaire mooy dañoo mi ngi mel ne maag yow ñu war a daw. ñi daw daw daw ma daw ba raw la. waaw mais ma taxaw rek nara suuf la rek nga ne ma nan dawaat. Hmm. ma defee ne man maag yow ay daw nga indi yeneen beneen beneen beneen athlète. bu war a daw parce que ñoom Mimi Touré bokkuñu woon ci élection yi seen yoon nekku ci woon te am nañ xaalis ñoom problème ay fonds xaalis ak yooyu amuñu bu dee nag ñoom kii Barthélémy Dias maam même candidat yi demoon ci élection locale yi ñoo war a demaat daanaka ñu ci ëpp waaw léegi nag ñenn ñi soufflé nañ ci sonn ñenn ñi ñàkk nañ def nañ ci xaalis boo xam ne lépp nañ mënaguñ koo fay ak ak yeneen ak yeneen hmm. ba pare tamit euh, xaalis bi ñu war a jëlee ci moom ci askan wi lañ daan jëlee hmm. ñoo leen daan may téeméer mille francs ñu koy campagne boo xoolee askan wi bii paa dañoo nekk ci tabaski gi Hmm. voilà am na nag lu ci xaw a am crédibilité tuuti mooy jàpp naa ne bu fekkente ne laa wax nag wóoruma de bu fekkente ne ak ñàkk xaalis hmm. moo leen gàllankoor man biñ gañee maire yi dama ne woon danañ mën a jekko élection locale yi parce que ku ne yor nga sa maire bu fekkee nag yor nañ ay maire yi ci seen loxo ba noppi di am problème ci seen coalition hmm. loolu day wane ne kon ay nit lañ yoo xam ne ku leen dénk alalu askan wi duñ ko sàcc loolu am na ci solo bi ci des mooy élection yi tamit am naa ragal ci bi mën naa am problème parce que tabaski gi ñu bëree bëri buñ tabaski jee le 10 toogaat fa bala 31. duñ ko mën. te buñ ñibbisee dakaar mm-hmm. boo moytuwul duñ mën a delluwaat ci benn semaine nga ñëw dakaar delluwaat seen dëkk pour wate ji. Mm-hmm. loolu mën naa bañ a am mais loolu na ko gars nañ ko bàyyi xel daal. Mm-hmm. moom ay lii wat dafa am solo surtout assemblée national bii. assemblée national mooy loo xam ne bu leen neexoon. ñu dem wate buñ wate léegi ne képp ko amoon kër Sénégal. maanaam kër googu yoon nangu na ko. ñàkk nga ko te buñ ko xasee ba wate day jàll bu leen neexoon ñu ne bépp sëy buñ takk ci réew mii assemblée nationale bi ah, wate nañ ne waaw d'accord dama ne waaw baax na bu ñu laalee sëy yi dama ne bu leen non dama lay wax mais exemple laa lay jox rek réew mi tàkk dama ne la assemblée xam nga assemblée nationale xam nga damay wax nit ñi rek dayoo assemblée ah. mooy mooy mooy li tax li fi li tax kenn ñemewut a dugg dugg sa kër jël sa télé di dem. waaw bi ñoo wate ne. loolu dañ koy tere. Mhm. su assemblée bi ne woon ku dugg kër nit jël télé ba yóbbu dara du la ci fekk. day dagan ñoom ñooy daganal ñooy xaraamal. léegi nag loolu dafa nekkul ay caaxaan. il faut ñu mhm. gëm ne lii ñuy def élection yi ñu jëm élection yu am solo la. yoo xam ne. dafa war a jaral nit mu paas dëkk ak dëkk wala mu dem réew ak réew. Mhm. ngir vote dem vote yi voilà loolu moom nañ ko bàyyi xel bu baax. incha allah waaw jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye macha allah jàngat gi am na solo ci li nga xam ne mooy Cheikh euh, coow li nee na kur ginnaaw bi ki nga xamante ni mooy Embalo mi nga xamante ni moom la ñu wax ni mooy booyu Macky Sall euh, daa dee dajeeg Sonko ma jambal xëy jamba daa di bind. wane ni kat ki nga xam ne kii moom mooy. Ousmane Sonko moo sàkk woon mbir ma defe naa loolu la Madiambal bind jaare la noonu te bi ko Madiambal bindee tamit ñu daal di wax ni Aliou génn na fi mu toll nii Aliou ak majambal sax jot nañ cee laalante yow noo jàngatee mbirum Embalo mi nga xam ni ñëpp moom dañ doon wax ne booy Macky Sall la gisante ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko waaw loolu nag maanaam lu amoon lu riis la lu am solo loo xam ne Madiambal daf koo daf koo yàq Madiambal da ko yàq mhm. nu ko yàqee mooy ay yaa ko soxla dinaa ci ñëw ah. mais euh, gis nga mag Ousmane Sonko ak ak ak ak euh, Mballo hmm. muy Guinée ak Casamance dañoo dend Ousmane Sonko di autorité fee kee di autorité fee loolu benn la ci yi leen war a boole hmm. ñaareel bi ci des mooy hmm. euh, Mballo dafa dañ koo fal mu nekk président CEDEAO loolu nag boo ko nekkee ak CEDEAO barki démb li ñu doon wax ci limitation mandat nga xam ne Afrique lañ bëgg man troisième mandat jeex fi waaw loolu lu intéressé Ousmane Sonko la te Embalo mooy ki porté combat boobu actuellement mhm. loolu war na leen a mën a dajale lu mhm. ci des mooy Xaddaafi euh, moo formé Embalo Xaddaafi moo ko formé booyu Xaddaafi la mhm. te Embalo su fekkente ne booyu Xaddaafi la xamal ne Xaddaafi unité africaine daanaka moom la bëggoon te ci lañ ko rey loolu nag bu fekkee Xaddaafi moo ko formé loolu mi ngi ci biir boppam. te nag unité africain. Mhm. bu gisee demarche yi Ousmane Sonko. war naa mën a yaakaar ne la ma rëccoon ci Xaddaafi man mën naa am mi ngi ci booy bi naa ko jege xool ko ba xam wax ak moom. Mhm. loolu war na leen mën a dajale. waaw bi ci des mooy euh, waaja nu mu tuddati euh, waaye gomis la xaw ma kii bi xarit mooy xaritu Sonko bi. kan euh, Pereira. Domingo Domingos Pereira. waaw dafa moom xam nga premier ministre wu kii la woon. Euh, Mballo moomu. Guinée-Bissau dafa am Guinée-Bissau laay wax dëkk ba. Mm-hmm. dafa am jafe-jafe foofu ba Mballo am ak jafe-jafe Mballo jafe-jafe bu rëy te Mballo daf ko xaw a ragale xel. Mm-hmm. te kooku usmaan Sonko da ko jàppale woon ci élection ya. Mm-hmm. ba pare tamit xaritam la. loolu tamit mën naa tax ñoom ñaar ñu gisante. waaw nga bu ci desit mooy ca démb. Njaliñ Sonko. mooy maam yi ñoom Ousmane Sonko mii. Njaliñ moo leen Njaliñ Sonko. Njaliñ Sonko maamu Ousmane Sonko moo leen mooy seen maam. Hmm? dafa dëkkoon Guinée nekkoon Guinée. Ah, ah, ah. doonoon ko am xam-xam. demee ba état Guinée ba jàppoon ko ne dañ koy rey. buur ya hmm. mu ne leen bu ngeen ma reyee Guinée. waaw bu ëllëgee lu baax ci réew mi. waaw samay sama sama samay sët a koy def sama deret lay jóge hmm. ñi ne ñi ne ko dañ la yóbbu senegal mu ne bu ngeen ma yóbboo ci senegalit bu ngeen ma fa rayee. lu ëllëg lu baax ci réew ma. sama deret ji ñoo ci lay génn. njëriñ Sonko waaw. mu ne mu ne leen da ngeen may yóbbu ci frontière bi ngeen ray ma fa frontière ba ci diggante senegal ak Guinée bu ko defee bu ëllëgee mhm. lu baax fii man lay doon lu baax fii man lay doon Guinée yaa ngi ne déedéet indi ko ba Sénégal waaw daat koy rendi Sénégal lañ ko reyee waaw Njaliñ Sonko Njaliñ Sonko la tudd loolu xaw ma Sonko xam ne ko mën naa am xamu ko mais ñi sant Sonko du ñàkk ñu ko xam mag ñi hmm. en tout cas loolu ah, dafa bokk ci loo xam ne maamaati Sonko ñoom dañ doon vivre léegi da ngay analyser ba ci maamaati <laughs> dañ doon vivre Guinée te loolu lu yàgg la waaw waaw léegi nag ñi ñëw ci audience bi audience bi nag. ma jàmbal jaañ li mu ci wax. waaw amut. amul laay wax. mu jàmbal waaw. lim ci wax amul lim ci wax lépp dara du ci dëgg. maa ko weddi. waaw. dinaa la wax tuuti danaa la wax loo xamante ne information bu bu bees tàq la mooy. Hmm. Mballo moo bëgg a gis Ousmane Sonko. Hmm? waaw. sàkku numéroom Alioune Tine jox ko ko. muy woo Sonko mënu koo jot. mu waxaat ne leen man mënumaa jot Sonko. woote waat ñu jot Sonko fii ci Sénégal ne ko am mbaaloo daf laa soxla. mu wuyu ko mu ne ko damay ñëw Sénégal la 5 le 6 le 7 dama la bëgg a ci ay mbir. Sonko boole ko El Malick. ak chef de cabinet wu ñoo doon déggante di déggante di déggante ba audience bi am. Mhm. bi audience bi amee Mballo photographe moo photo photo yi yónnee ko ci téléphone El ñu publier ko. dégg waaw. Hmm. kon euh, noonu la demee ay yaama soxla ak soxla woo ma nag loolu ma ñàkk fayda dong la ma jëmbal def parce que sëñ Muntaxaa. waaw Macky Sall danañ gisante léeg-léeg fekk sëñ Muntaxaa ko soxla. waaw danañ gisante léeg-léeg fekk Macky Sall ko soxla. Hmm. waaye dama lay wax ne ma jëmbal amul njariñ xamul njariñ mënta jariñu mënta jariñe amul njariñ eh, maanaam amul eh. njariñ amul njariñ xamul njariñ mënta jariñ boppam mënta jariñ nit ki mu jàkkaar lool parce que moom li muy wax Macky Sall kooku hmm. humiliation la ah bon Sonko Embalo jóge hmm. Guinée waaw jëm si Sénégal hmm. ci biir audience maanaam biir rendez bi mu am ak Macky sàll mu dox ci yittey boppam ne man damaa soxla woon Sonko jaar naa fa loolu moo gën a rafet Macky Sall paasal Embalo jëlal ko hôtel indi ko Sonko soxla ko gis ko xaw ma li ma xam nga comme déet yow nga dem jël Guinée paasal sab sëriñ waaw indi ko jëlal ko hôtel ba noppi balaa mu laa jox butéel dem jaar ci sam noon jox ko butéel doo ko ñëw di la jox butéel hmm. loolu fekk sam noon na koy eh, e jox ma butéel yi mu jox ko ko loolu loolu loolu loolu kiiwut waaw maanaam Embalo ñëw Sénégal soxla Sonko moo gën a sax yenu maanaa ci Sonko gis ko mu jógee bitim réew ñëw Macky hmm. Sall mag ci audience u Macky Sall ah, Sonko organisé ci audience am gisante loolu dafa ñaaw ci ci Macky Sall te jàmbal eh, loolu lay wootee hmm. bi ci des mooy wax nañ fi naan ay problème mu Adji Sarr ba amul turu Adji Sarr bu fa jóg. waaw amu fa. ñoom nag lañ bëgg mooy waxuñu ko fa. tudd tudd maanaam ñoom imbaalo ak Sonko kenn tudd fa Adji Sarr. waaw bu dee élection yii ñuy wax tamit naan tudd nañ ko fa même bu fekkoon dañ ko faa tudd. loolu ba tey ab defet lay wane. ndax élection locale ni ñu ko tëggee ci Afrique. waaw wala Sénégal gi pour ab. ab ab état organisé ko ñàkk ko parce que mbooleem région yëpp raw gàddu la état ko ñàkk ko kooku problème la élection local yu ma sa am Sénégal dañ naan ñaata nan maanaam nan la ko opposition bi perte législatif laay wax législatif bu ma sa am dañ naan nan la ko opposition bi perte mhm. maanaam ñaata député ñu am est-ce a am groupe parlementaire duñ ko mën a am mhm. bu ñu demee nag ba élection législative jub ñu naan Mballo danaan Sonko ne ko ndax di nga boo pertee di nga di nga nangu mhm. ah te Sonko bokkut ci élection yi du candidat ñu naan ko ndax boo pertee di nga nangu loolu day wane ne ku mënta ku dem bay jub ay élection législative ñu naan da ko perte ak doo ko perte loolu impopularité Macky Sall la ciy wane dégg nga mm. kon ñoom xamuñu li ñuy wax mm. waaye li wóor te wér daal mooy bis bu Macky Sall joxaatoon Sonko passeport am bi dina yëg ne maanaam Afrique mm. Sonko Afrique fii ci Sénégal la gën a ñàkk la gën a minorité benn vedette benn star moo am Sénégal tey moo am Afrique tey. Mhm. boo xam ne mboolem li rëccoon nit ñi ci Thomas Sankara ak li rëccoon nit ñi ci Lumumba ak ñañ doon jooy. nit ñi ñu ngi koy reefe ci moom mooy Ousmane Sonko. te balaa cee Macky Sall xam dara na ko jox passeport bi mu wàcc Mali wala Niger wala Burkina wala Guinée. dina yëg ne Sonko. Mhm. léegi leader africain la. waaw te noonu ko Embalo yëge parce que Embalo benn affaire rek la bëgg. Mhm. mooy defar image am te wóor na ko ne toog ak Ousmane Sonko dafa am lu muy def. Mhm. bi ci des mooy lan moo tax ma Sonko seexlu Macky Sall ba du toog ak moom. nangu di toog ak Embalo. Embalo tamit dafa taxaw résister na troisième mandat du amati Afrique. waaw xeex na ceeg Alpha Koné ba gañe ko ci mi ngi ceeg Alassane Ouattara mhm. Macky Sall ca la jëm gis nga audience bii mhm. lenn la mooy signe la buy wane ne Embalo mii tàmbali naa xeex ci troisième mandat moo tax mu ñemee waaxu ba ca sonk ndax Sonko yàgg na fi te nangu doon a toog ak moom bi ci desit mooy président yi yëpp xam nañ ne Ousmane Sonko bokk ci élection 2024 yi mhm. moo tee mu gañe ko parce que ñoom ñëpp a bëgg a positionné wu balaa booba nag loolu mooy waral lu nii voilà amoon na ci nag ay inconvénients yu ma ci mën a xaar ci Sonko wala inconvénients yu ma ci mën a xaar ah, ci ci ci ci mais mm. loolu xaju fi beneen yoon danañ ko dinañ ko wax ah, mais daal ak lu waay mën a wax daal mooy ma jambal moom li mu wax ci mm. loolu audience boobu mm. dara wéru ci xamu ci ah, dara dara xamu ko ci dara voilà xamu ci dara dara dara dara voilà jërëjëf Cheikh Bara Cheikh baar Ndiaye boroom def gis temps bi jeex na bajam ki jong un wax na ko temps bi jeex na léegi jox ñu programme bi waaw programme bi li may njëkk a wax mooy waaw su ma ñëwaatee émission bii ñu jëm bii bu may seetaan na nga yor big ak fooy dinaa indi dog ya ma waxoon dog yan yañ waroon a ñaan fii ci ci ci ci ci mbirum ñi nekk ci yoon wi tey tey dëngal rek ah. dog yi magistrat ya ma fi waxoon waaw insha allahu liggéey naa ko ba noppi ah. danaa joxe dog yi hmm. yaa mun taqimu la ah. ak ahamun sàqun yesu yesul waaw pour kan magistrat yi. Ah, waaw waaw. Hmm. tooñkat yi nekk ci réew mi te nekk ci yoon bi. nga xam ne mënuñu leen a folli mënuñu leen def dara. ñu ñuy jaay doole. léegi dog yi pour yaa mun taqimu mooy yàlla yow mi fayantoo. waaw yàlla di fayu yàlla fayuluñu ci tooñ gi ñu dëkk di ñu tooñ di rey suñuy doom di ñu tëj ci àll bi di ñu def lu nekk di. pris hmm. complot président bi ak ñu am ñu nekk ci ruq di ko jël di ko lekkaat. Hmm. loolu noonu. amuñu ci pexe yàlla am na ci pexe nañu fayu loolu la ñuy wax beneen ah. bi ci des mooy ahamun sàqun alawn yesun sëriñ ah. bi may seetaan xam na ne loolu turu xeex la ah. waaw buñ ko liggéeyee hmm. nañ ko war a liggéeyee waaw buntu feeñ kooku man maa la ko wax te bu àjjuma insha allah dinañ ko dinaa ko joxe bi ci des mooy am naa ak coppet tamit ci wàllu liggéey bi ñuy liggéey na nabar mooy heure yi heure yi laa changé léegi hmm. muy samedi ba ba vendredi bi si may liggéey yëpp sept heures matin la ñuy tàmbali liggéey bi sept waaw ci suba c'est vrai sept di nga ñëw suba yow laa tàmbali waa déglul 7 ci suba la ñuy tàmbali. waaw di jeexal 13 heures 30. fu ma noddee tim tisbaar jeex na. pare nga waaw. waaye 7 heures nag la ñuy tàmbali fu ñu noddee tisbaar arrêté nañ ba suba waat ci 7 heures. incha allah looy def après ci dog nga nekk waaw moom daal maa ngi noonu loolu ci yeneen laa nekk dafa am. yow léegi une heure ngay wàcc. waaw une heure. ah yow. une heure la ñuy ah, wàcc nax nee ne. non non ba tey mën naa nekk. <laughs> <laughs> waaw joxeel numéro téléphone yi Cheikh Bara euh, xam nga man sama sama liggéey lu ci gën a bari waaw wird la lu ma ëpp ci temps rek liggéey bi di gën a ñoŋ di gën a baax ah. waaw euh, léegi nag programme bi mooy hmm. euh, jeudi waaw non vendredi comme suba hmm. à partir de sept heures ba treize heures trente hmm. maa ngi as aslem ci Rufisque yi mooy cité sëñ Mansour termini su quarante-huit boo ñëwee ba kër Pape Coppel rek wala ci station Aïdène bi nga laajte kër sëñ Baara Ndiaye ko laaj mu wan la ko. Mhm. ab siti euh, muy yaram buy xasan di tàng ballottement biir buy def kur kur kur. Mhm. ndiggalu yu metti bopp yu metti tànk yu tàng tànk yuy nagam articulation yu metti boo lekkee fii di xeñ xeeji ngay géex. waaw booy dem toilette ngelaw rek wala aw muy dem di delloo sa awra wala booy sëy di gaaw a pare. Mhm. yooyu yëpp boo ñëwee incha allah dinañ la ko traiteel. ci ba mu wér. ak asma ak tension ak jabet. ak sangate ubbiku mooy sangate ñett ñetti sangat yooyu muy wax sunguf si nga xam ne day ubbi. Mm-hmm. ak bayre ak wërsëg. loolu alxames euh, ajjuma suba ñu ngi koy defee foofu ci Rufisque. samedi dimanche lundi samedi dimanche ñu ngi koy defee HLM 2 ginnaaw école Madiaye Sall. moom itam même heure rek 7 heures. ba ba 13 heures 30. Mm-hmm. lundi moom ci la ñuy faj rab yi. mooy ñëpp rab yi tamit 7 heures la. 7 ci suba ba 13 heures 30 ba liggéey yëpp. léegi nag rab yi moom rab yi benn fan lañ koy faj comme ni ma koy waxee. waaw bu la tëjee bu la teree am wërsëg lu mu la mën a def rek affaire rab gént di sëy lépp boo ñëwee bis bu soobee yàlla benn bis bi nga fa ñëw dootoo jël si rendez-vous mm. ci ngay wér euh, am nañ cabinet itam Touba. Mm-hmm. tali euh, wetu ko sëñ Bass Abdou Khadir ca talib Gere ba mbooleem yi ñuy faj fii rek ku nekk côté Touba boo wootee da boo demee ci cabinet bu foofu da nga fa fekk sama rak mm. incha allah dina la ci taxaw jaajëf waaw wasalaam voilà di fàttali ne Cheikh baara Ndiaye la borom def gis numéro téléphone am di 77 610 81 81 77 610 81 81 nga jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis saajo faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala kon ajaratu di wax ni kon alxamis bii di ñëw ci la dog bi nga xam ne moom la Cheikh Bara di indi ngir dogal ko magistrat yi macha allah kon alxames ci dog yi gars yi préparé leen bind yi waaw Cheikh bu magistrat yi ñoom it jëlee ci dog yi di dog ñoom it. jëme jëme leen ko yéen xam nga loolu moom loolu loolu loolu loolu ab kii la nu mu tuddati wif la mooy yàlla bu ma la ko waxoon ni ma ko tëggee danaa ko wax waaw insha allah képp ku sol dàllam waaw di dox mm-hmm. wala ngay jéem